asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah mercredi 26 juin 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag jàppal tey sunu làmb fii nga xam ne nii moo di leewtoo point net leewtoo tv ba ca lit tv ku ci nekk rek daal tey moom xëy nga am foo nga xam ne fa nga génn bu dee suñu làmb la moom fa mu xëy génn fenn la Forza bu Fass moom la xëy dalal Forza nag mu nga gàddu ndëndëm di wax solub kabam rëg-rëg ma muy waxal itam mu nga gàddum ndëndëm Forza nag daal dafa mel ni fi mu nekk nii laale kooku la bëgg mu mel ni daal dafa mel ni daal koo xam ne ni day ah xaw ma day rëbb waaye loo ci mën a dégg daal Reug Reug lay waxal nee na su ma jëlee day maa ngi doon ki nga xam ne maa koy njëkk a daan nee daal moom diggante ak Reug Reug daal daa jàpp ne daal montagne mu ndaw a ndaw ndaw la maanaam daal bu doon ab jaarukaay la day jàpp ne yoon wu leer lay doon ci moom naññ ndax nag Reug Reug yorul bëre wala xeex wala bagage yoo xam ne ni jaaxal na ko nee na nag buñ ca yeggoon nee su may ñëw ca làmb ja jàppal bu dee ñaar fukki butéel laa war a indi jàppal ne ne bu keroog gi juróomi butéel laay indi ñëw yóbbaal sama victoire dal di ñibbi forsa daal moo xëy tey ci yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ngardaajoo ko di dal ci kaw kii nga xam ne moo di Reug Reug fi daan bërki démb Gris 2 waaye yemu ca de moom forsa yeneen ñooñu nit itam tudd na leen Yékini Senior nee na ci ñi mu war a bëreel la bokk lamba leen boole ñu ne ko Malick ñaa mu ne kooku moom wax ci waxam dama ciy tàyyi ndax moom moo xam li tax mu ragal ma wala bokk mu di ma daw moom forçat daal moo xëy tey wax lool mu mel ni kon moom fi mu nekk nii day mu ngay xaar te itam adversaire mu war ak bëreel mu nga leen di tudd waaye ñeneen ñoo xam ne nii moom jàppal sunu làmb ne na day boo bëggee dégg-dégg day ah li commencé le 13 juillet ba le 31 juillet day jàppal ne lu nar a tar lay doon ci ñoom muy waa école de lutte Boy Niang ndax sunu làmb nee na bu dee Boy Niang numéro 2 la le 13 juillet lay jàmmaarlu ak ki nga xam ne moo di la de Guiers ki nga xam ne tamit moo di Kalmundur tamit di Grand Mbagnick nekk ci écrit booba le 31 juillet moom tamit day bëre Zambala tamit. dafa war a bëre mu mel ni kii daal moo tax nag yëglikaay bi ne day mois de juillet bii moom ni mu ko tudde pour waaye ko booy ñaar di mbër mu mag ma ba ca poulain daal mois de juillet boo xam ne day lépp danger lay doon boo sàggane ci ñoom ndax nag combat yu rëy rëy rëy lañ ca am fas ko ca yéenee bëre yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw du ñu wax loolu leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fa nga xam ne nii moo di ca sunu làmb moo di biram ñing moo xëy tey di wax ci mbërëm ma Modou Lo biram ne na li leer ba leer moo du moom ah dina indi préparation boo xam ne day bu mucc ayib lay doon boo xam ne sax est-ce que du gën ba mu amoon ba muy bëre ak Balla Gaye numéro 2 biram ñing xëy tey di wax loolu fi nga xam ne moo di sunu làmb leneen loo xam ne tamit dañ cay dem muy lii nga xam ne nii moom moo di li suñu làmb ba tey rek mu muy xamal ay xale yoo xam ne day jàppal nee na da xale yoo xam ne yu jar a bàyyi xel ka ca jëkk moo di darso darso daal quatre cinq combat am ca ñeenti ndam ak benn defet yëgle kaabri day nam ko tudde nag mooy biddiw bi nga xam ne day mu ngi monte jëm ca kaw nekk fa nga xam ne moo di écrit xam sa cosaan waaye beneen xale boo xam tamit ñëw na ci moom mooy Noiré junior moom nag fitir karaak daal la ko yëgle kaay bi tudde moom itam quatre combats la def quatre victoire yoo xam ne day ñu ngay wane seen bopp bu baax a baax a baax waaye bu ñu demee fa nga xam ne nag moo di ca Ligue TV daal dañ fay fekk ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 ak Lac de Guiers 2 ñu mel ni que nag ñu nga ànd ñoom ñaar fi mu nekk nii day di préparer Boy Niang maanaam daal di contact wala di entraîner boog foofa tamit nu ñu koy xamal waaye bu ñu demee ba tey ca Ligue TV wala boog ca Leewtoo TV ñoom it ñun ñuy xamal ne day kii nga xam ne moo di Ngagne Diagne daal ak amateur yi làmb ya ñoom di wax ki nga xam ne nii moom la war a bëreel loolu tamit ñu ngi koy jànge nga xam ne mooy ca Leewtoo TV waaye ba tey bu ñu continuer dem ca Leewtoo point net mu ngi ñuy xamal ne day li leer bal leer daal jàppal drapeau chef bi nga xam ne ci li jëm day démonstration ci ay jigéen yu bëre dina fa am moom ñoo xëy di ñu xamal loolu waaye leneen loo xam ne Leewtoo point xamal nañu ko muy Ibrahima Faye ñu naan ko bës te mu yore nag wàllum pay-per-view ci bi nga xam ne moo nekk ci làmb ji mu ngay leeral ci mbirum Boy Bambara ak xaalis ba ñu xam ba ñuy wax ne daal dafa dañoo am 4 millions jox ko 300000 bës nag nee na mbir ma demewut noonu nee na 300000 ya lañ ci jublu mooy ay ordonnance lañ fa fekk fas ku ko yéenee jëndal ordonnance nga xam dañ ko faa fekk te kenn mënu woon koo jënd la ca des nag di xaalis moom nee na ñoom ñoo ko denc ci liñ ca bëgg mooy am médecin bi la maanaam kàddoom daal la ñuy xaar bu leen joxee kàddu ñu génn ko yóbbu ko Maroc wala France fas ko yéene nag faj ngir mu wér jëm nañ koo faj fii ci réew mi ba sonn te sottiwul waaye moom jàpp na ne day xaalis bu ñuy jël wala ñu koy randal wala ñu koy sàcc moom bés daa jàpp ne loolu moom waxi naaw toq la te ju wax ju am ndax nag ñoom doxuñu ci loolu tey suba waxi noppi waaye leneen loo xam ne tamit day ñu ngi koy gis muy drapeau sur la table dañ cay dikkaat rek jàppal li leer ba leer daal tournoi ba moom danañ 35 ans yoo xam ne day mu ngi am waaye loo ci mën a dégg daal délégation bi moom ñu ñuy xamul ne suba jëy la ñuy dem fa nga xam ne mooy ci mbuur àjjuma nag la compétition ya war a commencé Cheikh Tidiane Niang moom mooy capitaine Fatick jamono yooyu moom nee nañu am pare nañu fi nekk nii moom waa Fatick daal Cheikh Tidiane nee na pare nañu keneen koo xam ne moom ba paree ci làmb wala mu cay waaj a pare day moom nag fa mu fas yéene awale daal nee na mu ngay def li nga xam ne day mooy formation wu garde du corps kooku mooy Adama Diouf di champion bi nga xam ne moo nekk ci écrit ba ñuy wax Mamendis loolu daal moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi waaye loo ci mënti dégg daal li ma xam ba xam ko day jàppal Lac de Guiers 2 Boy Niang dana mel ni njarndeem waaye Eumeu Sène ak nga xam ne tamit moom moo di Modou Lo wexxaat lay def waaye double moteur ak ki nga xam ne moo di la jar naa bàyyi xel waaye leneen loo xam ne des ko war a bàyyi xel mooy góor a soog Tyson 2 ak ya nga xam ne nii moo ca aju mu mel ni ki daal làmb ji moom fan yi ñu jëm day nar naa jax lool lool lool ba yegg sax ci loolu salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di dellu seeg yéen ci seen revue de l'arène comme ni ñu koy andee chaque jour andi seeg Babacar Babacar nuyu naa la. fay naa la Aïssa madame Niang maa ngi lay nuyu yow di la ziar di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi suivre ci Leewtoo TV ci seen revie de l'arène bi muy revue bi ak jàngat bi yëpp ñu ngi leen di ziar daal di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci ñoom fu ñu mën a nekk rek si àddina bi Aïssa. Euh, dañuy dugg ci jàngat bi daal koy tàmbali ak li nga xam ne tey ñëw na à la une ci suñu lom muy Forza boo xam ne nag euh, gaz na ndam mu déglu mu mel ni kuy dëkk moom ñi kay tudd nag ci Reug Reug Forza di xam ne nag bu Reug duggee ci moom moom mooy doon ki njëkk a daan te dina doon ki nga xam ne ni moo koy freiné. waaw loolu la wax ci sunu làmb ah muy loo xam ne itam comme li ñuy wax rek euh, làmb moo tëddee noonu te yëgle capital na ko xëy na wax loolu loolu nag li ñu ci mën a wax ay sa mooy la rek mbër la boo xam ne mu ngi ci lancé am tamit yaakaar naa ne mbër la boo xam ne ni mën a bëreem kenn du ko nattable kon moom su toogee mu ne moom bu Reug Reug duggee ci moom mooy nekk ki ko njëkk a freiné xëy na am na fu mu ko teg parce que kenn du la ne mënta bëre kenn du la wax mënta xeex kenn du la wax tamit dafa néew doole kon li war a daje si mbër yëpp daje na ci moom am na tamit encadrement waaw kon nag xëy na moom loolu suñ ko déggee mooy comme daan na rakkam ci Gris 2 ah xëy na moo tax nag mu bëgg a taxaw nag jël li nga xam ne nii moo di ay dafa am pour jéem a jàmmaarloo ak moom waaye lu ci mën di doon daal su combat ba amee itam dana doon combat bu neex a neex tamit combat boo xam ne lu war a mën a nekk la parce que ñoom ñaar ñëpp fi mu nekk nii fi ñu toll yaakaar naa tey força mu ngi ci benn dynamique de victoire rëg-rëg daanoogul kon yaakaar naa war nañoo mën a bëre kanta freiné ba ak du ma ko freiné nag loolu moom dañuy bàyyi ba combat ba yegg ba bañ yegg sa combat ba ñu xool ba xam parce que lu la ci waay mën a wax rek ñoom ñaar ñëpp ay lutteurs lañ yoo xam ne ni yu ñàkk caaxaan lañ par rapport ak li nga xam ne ni moom la ñuy def ci làmb parce que foo leen du ñu sumeeku ci làmb nga ne entraîné wuñu te loolu defe naa mooy fulla ji nga xam ne moo war a jiitu ci athlète bi nga xam ne da ngay def sport rawatina nag sport individuel. Babacar euh, fulla jooju préparation boobu moo tax ki nga xam ne ni mooy euh, Père Birame ñi ngi tamit ñëw ci préparation Modou Lo moo xam ne ma nga ca États-Unis di waajal combat am ma Eumeu Sène nee na forme bi muy indi moom incha allah dina gën fuuf bi nga xam ne gis nañ ko contre Balla Gaye ndax préparation bu mucc ayib ci la nekk. waaw ba tey waaw Père Birame waaw moom loolu tamit su ko waxee ah kon ñiy supporter Modou Lo seen xel nañ ko dalal ndax ki wax loolu mooy prosu Modou di peeram di nijaayam di manageram en même temps kon yaakaar naa ko mu lu muy xëy di ca yendoo ko fanaan moom xam na ko rawatina nag lu jëm ci wàllum combat bi nga xam ne moom moo ko ko jëlal kon yaakaar naa ah euh, bu ne daal la mu indi woon ci Balla Gaye ci wàllum forme bi yoon dina indi lu ko gën kon defe naa supporters yi koy bëgg di xaar Modou ngir mu di leen doxle wala forme kon père bi dama wax na lu nga xam ne luy dalal seen xel la kon loolu yaakaar naa ñoom mën nañ cee jàpp kon daal jàpp ne foofu tamit li ma wax rek dana metti lool lool lool ndax Eumeu Sène itam gis nañ ko ci ay vidéo mu ngi ci liggéey bu méttee métti te bu yàggul daje nañ fu ñuy wax loolu seeseen da nga koy gis xam ne moom itam ah di génnu Sénégal mi mu ngi liggéey kon nag loolu dañ ko soxla si làmb ñaari mbër yëpp daal nañ leen di ñu ngi leen di ñaanal bés ba la ñoom ñëpp ku ci ñëw boo summee ko ñu gis na yow mi indi nga doole indi nga entraînement la ca des nag ca biir géew ba lay xewe bu keroogee nag que le ku mën sa morom duma comme ni ko gars yi waxee rek waaw waaw. ñu dem euh, waa écurie euh, école de lutte Boy Niang euh, ñi nga xam ne ñooy ay poulain au per Dougal ñi nga xam nag ñoom juillet bi am nañ ci ay combat yoo xam ne am na solo trop Boy Niang day wàcc le 13 Kalm Ndour ñëw le 31 mook Zambala mu nekk tamit ay sorties yoo xam ne c'est capitale pour écurie boobu noonu. waaw parce que tey école Boy Niang xalaat naa ne soo génnee Boy Niang ñooñu bokk na si ñu ngay njëkk xalaat muy Zambala ñoom ñaar ñëpp ñu di ay mbëru lit simple lit avec frappe tamit yaakaar naa est ce que amaguna ku leen ci daan yaakaaruma ko wala bu amee boog bëriwul bu booy ñangi war a bëri la 13 juillet ñoom ñaar ñu war a bëri la 31 juillet kon jàpp ne mois de juillet bi moom seen mois de juillet la ñoom école la lit booy ñang ndax booy ñang client la am mooy Lac de Guiers 2 Kalmu Ndour tamit Pape Yekini la am yaakaar naa muy client ki nga xam ne ni mooy Zambala am DJ DJ itam ku ko xam-xam ne client bu mag a mag la waaw kon moom Aïssa moom école lit booy ñang jàppal ne am nañu ay combat yu rëy rëy rëy ci mois de juillet bi mais nag li ma waxoon rek làmb moom waxuma daanu du ci am na parce que kuy kuy def sport bi day ñëw nga ñàkk mais li ma bëgg daal te xam ko wala boog li may wax mooy mbër buy ñëw na nga indi sa entraînement ak sa mën a bëre waaw waajal sa bopp waaw loolu moo gën a wóor. waaw gi dem làmb moom Babacar foog nga waajal sa bopp donte ndam day am defet day am xam nga nil sax léegi génnewu ñu ko ci làmb lépp ci la bokk ci la bokk mais waa la lépp ci la bokk lépp mun na cee am rek mais ku nekk rek na nga fexe ba boobaa nga wane jom ak fulla rek ba kenn du la jéppi looloo ci am solo ñu daal dem euh, ci li nga xam ne mooy drapeau chef de l'état ñu nekk ci wàccaayi Babacar ñëw na ba pare euh, waa équipe Fatick nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Niang moom nee na su fekkee rek ñoom la rek ñoom pare nañ pour dem li nga xam ne ni mooy jàmmaarloo fas yéene récupérer li nga xam ne mooy trophée bi ñu ñàkk daaw. waaw loolu moom mooy kon fi mu nekk nii heure ba sonné na. parce que nag ay fan yu néew ginnaaw suba lañ koy commencé xëccoo muy war a am lu ko commencé ajuma samedi dimanche fa nga xam ne mooy ca Mbour muy tournoi boo xam ne ren comme li may wax rek niveau bi daan na kawe mais ren yaakaar naa niveau bi dina gën a kawe ndax li koy yokk mooy Fatick mi nga xam ne da koo tàmmoon teglante du ko jël kon bu ñu daan ñëw gars yi du ñu yeb seen xel ci mën koo jël mais daaw nag dafa am lu leen dal muy Dakar dafa ñëw jël ko ren kon bu ñu ci jëmee dama naan niveau bi dina gën a kawe loolu ko Dakar jël Diourbel xelam dina nekk ci jël ko Thiès noonu Fatick noonu euh, Ziguinchor Tamba région yëpp ne da nga koy bëgg a jël parce que da ngay bëgg a def li Dakar defoon daaw kon Fatick itam même bu nekk ay favori la doon mais du yomb ci ñoom Cheikh Tidiane nag loolu mu wax am na droit wax ko en tant que capitaine que ni ñoom seen équipe actuellement pare nañu te dañuy dem li leen rëccoon daaw ñu jëlaat ko waaw loolu la ñu bëgg parce que ku ne tàmm na at yi passé ñu koy faral di jël mais nag dafa mel ni léegi yaakaar naa dafa mel ni doon yi dafa bëgg sens fi nekk nii. waaw Babacar ku nekk booy dem ci compétition di nga fexe ba dajale équipe boo xam ne ni soo demee leer na ne di nga ci jéem a jël li nga xam ne ni mooy drapeau parce que gis nañ dakaar daaw fu ko nit ñi xaarul woon naan dina dina mën na nekkam du nekk Dakar ne leen mën na nekk yeneen région itam foofu la ñu bëgg génn ñu mel ni Thiès ñu mel ni. Kolda ak ñu mel ni Diourbel ñeneen ak ñeneen fu la ñu bëgg a génn. bien sûr parce que loolu mooy sarme bi sax ah parce que loolu mooy tax mu neex mais bu fekkente ne dañ naan saa yoo amee rek Aïssatou koy gagné bu gën a gën nekk compétition waaw dootul amati ah, du am enjeu seetaankat yi duñ ci am duñ ci sawar mais nag bu ñuy xalaat naan kii wala kii wala kii day tax kii seetaan du doyal day bëgg a seetaan xëccoo bi tar. day neex trop trop trop foofu nag ci la ñuy xoolee dëgg dëgg dëgg dëgg mbër yi nga xam ne nii ñoo gën a pare sur si weeral xam naa ne yàlla nañ ko fekkee ak jàmm lu nar a neex lay doon waa man de ah waaw man maa ngi ci sama équipe ba de Aïssa Diourbel la zone Diourbel laa bokk na ma la ko waxoon démb rek waaw ñu dem euh, tamit Babacar ba tey si li nga xam ne mooy drapeau chef de l'État ren muy am euh, benn innovation lu si mel ni démonstration lutte féminine jigéen ñi nga xam ne dañuy ñëw ñoom it def démonstration ci compétition bi. lool loolu tam am na solo ah waaw parce que olof a ko wax góor baax na jigéen baax na ñu indi leen ñu def démonstration lool tamit yaakaar naa wàññiwul dara parce que am na ay lu mel ne ay Jeux olympiques ak ay yenn tournoi lutte lutte yi nga xam ne day comme ay lutte libre ak yooyu jigéen ñi bokk ku mel ni Isabelle Samb gis ko ci ak yeneen athlètes ay ki sant jaata Evelyne la yaakaar na laa ñoo ñëpp kon yaakaar naa bu ñu leen andee ñu war a def démonstration lool c'est très normal xëy na fii la ñu bëreegul comme suñu bëree bi ñuy def nii mais bu dee ci au niveau international la faral nañ leen di gis ñuy génn vraiment di indi ay raay fii ci réew mi ñoom mbër yu wala boo litteurs yu litteurs jigéen yooyu waaw <laughs> ay mbër yu jigéen kon mbër yu jigéen yi voilà noonu la demee <laughs> waaw. yow euh, lii lañu andiloon tey Babacar si jàngat euh, revue de l'arène bi ñuy daal di jaajëfal Mame Talla ci caméra bi Chéri Lébu jaajëfal Ousmane ci montage bi jaajëfal équipe Leewtoo TV bi yëpp ñoom euh, yàgg père Birame Ñing ñoom Ndeye Koumba Fall képp koo xam ne rek yaa ngi Leewtoo Rose équipe Leewtoo TV yëpp Thialis tonton Diaw duñu bàyyi kenn Aïda Fleur képp koo xam ne yaa ngi Leewtoo rek ñu ngi lay nuyu daal di nuyu tamit ñi nga xam ne ni ñooy béggee Leewtoo di leen safoo jënd seen i connexion di ñu suivre ñu leen nuyu baax di leen ñaamal ñaanal jaamu jaamu bëree bëri bëri. waaw noonu lay demee Aïssatou kon nuyu nga kër gi yëpp nuyu nañ kër gi yëpp ah Leewtoo duñu bàyyi kenn dañuy jël nuyoo bi nag teg ko ci loxo calis mi DG bi ak tonton Diaw ñu nga xam ñu ñuy kilifa yi ñu joxal ñu ko ñëpp. xam nga di ñaanal képp ku fi liggéey rek jàmm mais di ko ñaanal bépp doomu aadama mais ñi nga xam ne tamit dañuy sonn ngir Leewtoo muy fans club Leewtoo bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar parce que ay milliers de personnes la ñu ñu mel ni ñoom Cissé nekk Brésil ñoom Assane Sall fu nekk waaye nekk fa ay mbër sax ngi ci biir fans club boobu muy ci nuyu ñoom ñëpp Fadja maa ngi koy nuyu depuis Mbour moom tamit mu ngi ci biir fans club tamit du leen fàtte ñoom Cédric xam nga du ma leen fàtte ñoom Pape Ndiaye Pablo Grand Lay Jib ñoom Jiga ñoom ñëpp nuyu naa leen fàttewuma kenn parce que kuy wax rek xam nga ku koy déglu la soxla te ñoom ñoo ñu ñoo ñuy may doole kon du ñu leen mën a fàtte fu ñu mën a nekk parce que à travers le monde lu ñuy def rek ñu ngi koy seetaan di ko déglu di ñu may doole kon ñoom amuñu seen fay xam nga ku mel nii amadul Amadou mbay wala boog majaana Madiana Diallo bi xam nga Abdou Abdoulaye Mbaye Abdoulaye mbay Fallou Ndiaye gars yi xam nga ñoom ñëpp ah, dañu bëri macha allah fu ñu mën a ne ñoom tuuti yaay Sarr Khady Rose ñoom ñëpp musa Mbaye xam nga Fodé Cissé Babacar Sow sama turandoo ñoom ñëpp Cheikh waaw Cheikh Bass Kër Massar moom moom saa nekkatu xeer xeer la mais Cheikh Bass maa ngi lay nuyu di nuyu waa Petersen ñoom jib seen ak petit ku ñuy déglu daal maa ngi lay nuyu di la ziar mais tamit di beral tey nuyoo ku nga xam ne commissaire de police la ñu koy wax commissaire Cheikh Diop parce que nit lay déglu ba safoo la ba woo la nga ñëw mu recevoir la ngeen toog waxtaan taal otom yóbbu la ba sa kër defe naa loolu fa la cër mën a yem te kilifa la kon commissaire Cheikh Gueye nekk di servir fa nga xam ne mooy région de Kaolack te actuellement mu nekk fii Dakar di dallu camp Abdou Dias maa ngi koy nuyu di nuyu petit frère am Mouhamed ñu naan ko euh, ki nga xam ne mooy chef John Sina di nuyu waa police bi yépp fàttewuma kenn commandant Fall mais ki nga xam ne ni mooy tonton ba moom mention spéciale waaw Xavier depuis Paris ak ki nga xam ne nii mooy coach su jamono nday kum Aysatu di la nuyu di nuyu nday kumba Fall mais tamit di wax Ayda mention spéciale Ayda nag temps yi gis naa lekk màdd waaw yàgg maar doomu ndeyu Kempes ca Paris Kempes maa ngi lay bëggee séeri Ami Sakho ah Kempes Baye Fall bi rig bi men bu mag bi ñu ngi koy nuyu mais nag euh, Aysa am na ku ma fàtte de mère Sougou maa ngi lay nuyu bu baax a baax suñu yaay jooju <laughs> mère nuyu naa la di la ñaanal jàmm di ko ñaanal njaboot gi mais tey nuyoo bi yëpp yow laa koy jox nga joxal ma ko ñëpp caat fay béggee naa la Ousmane célibataire takkil jabar monteur